maa ngi tudd Birane mbay nekk responsable APR commune d'arrondissement Est. jamono yi ma ñoom seen juboo bi ñuy wax ja nekk na juboo boo xamante gëmuñu ko gëmoo boo xamante ci kaw lañ koy def waaye buñ dikkee ci suuf duñ ko jëfee dañuy wax ni na président de la république ñoom ñuy ñëw ci kaw naan na juboo nañu dañ lay nax. ndax jubóowuñu buñ jubóowoon ci ci kaw kon war nañoo mën a feeñal ci suuf ñu ñoom ñëpp ànd dañ doon benn ndax gis nañu temps yi problème yi am ci dëkk bi loolu nekk la loo xamante lu ñu lu ñuy ñaawlu la ñu jël ay mu nit ñu monte di wax nit lu ñaaw loolu ñaaw bokk na ci loo xamante dañ koy ñaawlu ñun ñu jeunes yi xam nga président li mu war a def mooy jël responsabilité am ku nekk xam nañu dëkk bi li fi nekk ay réalité la ku nekk xam nañu nit ñi xam nañu ku nekk këla mën kon président na xool ñi fiy def li ñuy defal nit ñi la am njariñ ak ñuy jàppale jeunes yi di jàppale jeunesse bi di jàppale femmes yi na leen xool mu jàppale leen te ñun jeunes yi bu ñu ko dem tànn kooku dañ ciy jiital la DG de la poste Pape Siré Dia ndax jàpp nañu bu dee politique emploi bi président woote moom moo ci jiitu te mu ngi ciy jëfe di jàppale président ci loolu te loolu la président loolu la ndaw soxla ci part politique de emploi loolu moom mu ngi ci mën ndax li mu ko ci def ci biir kees amul kenn benn responsable bu ko si musa def kon dañuy wan ni président Macky di ko xamal ne ñun na jël ku mel ni pap Siré Dia jàppale ko dooleel ko taxawal ko ba li mu bëgg ci dëkk bi mu am ko ndax jeunes yi ànd nañoo ak moom imaam yi ànd nañoo ak moom femmes yi ànd nañoo moom e, groupement de femmes yi ànd nañoo moom association yi ànd nañoo ak moom ndax li muy def loolu jàpp nañ ni politique loolu la loolu la nit soxla ndax di jàppale ay nit te tegu leen benn intérêt loolu la président soxla te mi ngi ciy taxaw ñun dañuy wax xamal ni président Macky Sall na ko jàppale gën koo taxaw coow li nag bari na ñuy dégg ñu naan ay diw mooy coordonnateur commune kii mooy coordonnateur départemental loolu ñoom la concerné loolu ñun ñii di ay jeunes nekk ci parti bi loolu bu ñu fa tolloo nañ wax président Macky Sall ñun duñ nangu loolu ndax ñun mënuñu fee nekk nekk ay jeunes sonn ci parti bi gis ñiy jàppale président Macky Sall te boolewuñu ak ay wax. ñu ñuy tànnal ñu ñuy jiitee ñu di jiite ñun jeunes yi ñooy tànn ñu ñuy jiite te bu ñu dem tànn tey bari na fi ay responsable yoo xam te dañuy liggéey président Macky Sall ku ci mel ni Pape Siré Dia ak docteur Pape Awane ñooñu dañuy liggéeyal président te boolu ñu wax te kenn mosu leen dégg cooy xuloo président na xool ci ñaar ñooñu jàppale leen taxaw leen ku ci mel ni nag Siré Dia mu gën koo taxaw jàppale ko ndax am na ñoo xamante dañ fee nekk di yàq parti bi defaruñu parti bi te loolu ñaawlu na ñun ndaw ñi dañ koy ñaawlu ñaw gis nañ ni ñu taxawee parti bi defaruñ ko dañ koy yàq te loolu dañ nax président na ci wax ñoom mënuñu politique nañ leen génne ci politique bi ñu yem seen wàllu liggéey waaye li ñuy def dañuy yàqal président ndax gis nañu fan yee passé ay nit yoo xamante APR lañ bokk bëgg bàyyi APR pour dem ci yeneen parti te loolu ci ñàkk seen responsable bi leen yor la kon tey jii dañ naan président Macky Sall ne xool ci loolu xool ni muy doxee ndax loolu jàpp nañ loo xamante loolu rafetul parti bi te loolu dañ koy ñaawlu di ko xool ne ko dañ koy ñaawlu ñun soxlawuñu loolu ñun jeunes yi na xool responsable yi am dignité am personnalité di jàppale jeunes yi di jàppale mm, mm, femmes yi di jàppale imam yi di jàppale jàkka yi di jàppale école yi mu dooleel leen ku ci mel ni Pape Siré Dia gis nañ ko lu muy liggéey ci biir dëkk bi waaye bu dee lii la ñuy jëfee kon parti bi du ñu am dara biir kees ndax ay temps législative yi di ñëw war nañoo mën a fekk góorgóorlu ba président Macky Sall assemblée nationale mu am fa majorité boo xamante tey jii majorité boo xamante tey da koy jël ba Sénégal gépp teg ci seen bët waaye bu dee nii la ñuy demee am na ñoo loxo yoo xamante bu ko ci tegee jàpp naa ni li ñu bëgg ci dëkk bi nañ ko teg waaye bu ko tegee ci yeneen loxo yoo xamante jàpp naa ni lii ñu lii ñu continuer yi baaxul te ñun dañ koy wax ni ko ñun dañoo ay choix ay jeunes lañ te dañoo bokk ci parti bi na xam ne parti bi dafa am ay réalité fii ci dëkk bi mooy ñiy jàppale président gis nañ leen ñuy taxawu président xam nañ leen kon nag te dañoo toog di liggéeyal président te boo leen ci wax ñooñu lañ soxla mu jàppale leen taxawu leen ku ci mel ni Pape Siré Dia ak docteur Pape Amadou Ndiaye yoo xam te ay gëree lañ ñoo ngi ci dëkk bi nit mun ta wax ci dëkk bi te génn si ñu ku ci mel ni nag Pape Siré Dia ndax politique emploi bi muy def rafet na nekk na loo xamante ñun lépp dañ koy rafetlu te loolu dañ ciy dañ koy rafetlu di ko ci sant di ko wax na gën a jàppale président ci loolu di ko wax na gën a góorgóorlu ci loolu loolu daal dañ koy sant ko waaw loolu xam nga loolu wax ji yàqu la buñ ne Siré Dia day politique te du ñëw ci terrain bi loolu wax ji yàqu la ku xam Siré xam ni kees la dëkk te mu ngi fii ñëw sa toute la journée Siré Dia bu dee day politique du ñëw ci terrain bi am na fi ay gaynde yoo xamante te xam nañ terrain bi ñun dee luñu ku sañoon tey di nga am équipe boo xamante dañ lay rendre compte lu xew te loolu mu ngi ci am na ko ñu ñii ñoo ngi ci di ci dox ak moom di ci waxtaan ak moom tey loolu bu ñu nee waa kii bu nit ñi bu ñu taxawee ne si Dia day politique te du wàcc terrain bi loolu wax ji yàqu la chaque jour chaque weekend mi ngi ci dëkk bi di la président di dem ci jumaa yi di dem ci jàkka yi te nekk na loo xamante lu rafet la ñun dañ ko ciy sant ndax am na équipe boo xamante ñoo ngi taxaw di ko jàppale kon jaru mi wàcc terrain bi ndax kilifa la jaru mi wàcc ci terrain bi ñun ñoo ngi ci terrain bi te bu dikkee nañ ko rendre compte lu ñu soxla ci ay moyens mu ngi koy jox di jàppale président te boolewu ceeg wax te jàpp naa ne loolu moo gën a rafet te ñoo ngi ci ànd ak moom loolu daal moo nekkoon loo xam ne nit ñi nag la ñuy wax loolu kenn mënutee ñaax na politique a mel noonu waaye loolu nekk na loo xamante ñun loolu ñun xam nañ ci bu dee di wàcc terrain bi xam nañ ci loolu daal sama kàddu gu mujj mooy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu tey suñu papa Mbaye Samb émission bi nekk na émission boo xam ne dañoo bëggoon a leeral rek li xew ci dëkk bi xam ne ñun président Macky Sall moo ñu ñor te bu amee ndam ñu am ndam tey xool nañ li parti bi di doxee ci biir dëkk bi gis nañ ñi fi jàppale président te boole ñu na ko wax coow li nag bari na waaye dañ koy xamal ne ko fii si Dia Pape si Dia DG de la Poste moo fi nekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam